dinañ def ay démenti comme ni nga ko waxee maanaam weddi tuuma ci li nga xam ne ni Bara Gaye maire Yeumbeul Sud da ko wax ci fan yi jëmale ko ci Mady Ndiaye pourquoi ñun ñu jël suñuy responsabilité euh, di di def démenti boobu parce que jàpp nañ ne ñun ñooy concerné numéro un ñun waa Mady Ndiaye zone Mady Ndiaye bi bokk ci coalition présidentielle Euh, pour quoi loolu au mois de mais euh, le ministre Amadou Hott ministre de l'économie euh, dafa rës da doon recevoir zone yëpp bi mu ñëwee ci tuuru Mali Ndiaye bi mu ñu recevoir ku la recevoir di diglu say jàmbat danga koy indi lay xew fa nga dëkk ci loolu lañ ko waxee li nga xam ne nii bokk na ci tawatu population parce que demuñu foon pour suñu bopp mais pour population yi lañ doon lañ doon demal bi ñu demee ñun ñi nga xam ne ñooy responsable yi nekk ci zone Mbadi Ndiaye bi ñëpp ci coalition bi toog ak ministre bi bokk na ci yéen ko waxoon loo xam ne nii mooy école Mbadi ne ko école bi euh, population bi ñu ngi jàmbat depuis bu yàgg parce que du daaw kese que problème mu toilette am Mbadi bu ñu dem ba miir bi daanu te ku xam ne mur bu daanoo. bu amee lu daanu ci miir à tout moment leneen mën na daanu gaañ xale te ay xale parce que école primaire la bi ñu ko ko waxee mu mu mu jël ko au sérieux ci semaine yooyu walla ci semaine boobu la yabal parce que xam na ne moom peut-être nekkul ci ay compétence am mu ñëw di ko def directement donte ni mën na ko def mais dafa yabal ay techniciens yu ñëw parce que dañ koo wax te nit boo dee kilifa nga war nga war a jël ay décision wala nga war a def une intervention pour que ñu faj ay mbir euh, il faut nga am des informations yu leer ci la yebale ay techniciens pour ñu ñëw def diagnostic ci information yi ñu ko jox comment ça se pour que bu ma nee buy def plaidoyer bi man koo def ci mucc ayib bi mu yebalee la première chose lu Bara Gaye def ak ay ñooñam wala mu yebal ay ñooñu ñu def ko mooy dañoo tere ñu fa ñëwoon pour saytu pour defar loolu ne duñ dugg te xamuñu sax la leen fa indi woon parce que kuy liggéey si xanaa dangay indi matériel munoo liggéey si te wax dëgg si yàlla dafa diagnostic donc dañoo ñëwoon pour xool la fa nekk man ko yóbbu indi ministre bi ci lu leer en tant que technicien mu tere leen ñu bàyyi ñu dem ministre bi xam na ne économie la yor. compétence am nekkul ci dem di tabax ay école euh, maire moo ko war a def ci ci côté boobu euh, lii fa yàqu moo ko war a def mais comme doomu yëmbal la mu porté euh, loolu ye wax ko ministre mini ministre de l'éducation national waa ministère def comme moom li mu defoon xamal na leen ne ñi fi ñëw dañuy ñëw pour diagnostiquer. ku ku nekk xam na ne ministère de l' éducation nationale prérogative am bokk na ci nag bu école yàqoo mu defar ko donc ci loolu la ministre bi le ministre waa ministère de l' éducation ñëw techniciens yi ñëw xool li fi nekk jël engagement aussi def ko pourquoi euh, euh, loolu tey baara lettre bi muy wax nii mu jot ci c' le maire donc lettre boo nga xamante ne jox na ko doon nekkul euh, ne dañoo tere euh, ki nga ministre yi ngir mu def travaux yi mais juste benn lettre bu ñu ko envoyé la bi wane ne euh, ministère joxe na confirmation ngir ñu mën a technicien ñu mën a ñoo ñooy xam nga moom laa lay leeral ministre bi mënoon na jël engagement def ko mais bañ a tooñ bañ ëllëg ñu ne dafa def lu mu warul def ñu koy jam tax na mu jaarale ko ci yoon yoon bi mooy lan mooy mu mu mu de ministre de l'éducation nationale pourquoi parce que boo fàttali ko Bara ministre bi ñëw na ci at yi passé daaw wala daaw jéeg ñëw na laayam moom mu nekkoon fa mu taxaw mu ne moom ministre bi moom Bara Gaye le maire mu taxaw mu ne Amadou Hott ministre de l'économie yaakaar nañ doomu yëmbal nga yaakaar nañu pour yow nga jàppale waa yëmbal ci yëmbal fii ñu nekk ñu jóge fii waaw moom en tant que maire nekk autorité numéro un bu maire yi bu bu bu bu commune bi su demee ba mën a solliciter le ministre ci ñu jàppale ko population bi taxaw ne wax nañ Bara Gaye lii Bara ngay defu ko kon jàpp naa ne su ministre bi jógee sol dàllam pour def loolu Bara dafa war a applaudir les deux mains mais ci politique lay nekk. il a droit mu mu wax ministre bi amoon na possibilité ñëpp xam ko ne def ko mais dafa wax waa ministère de l'éducation nationale nañu jël loolu def ko liggéey ko parce que seen prérogative la kon bu ko ñooñu defee kan moo ko def du ministre bi moom la ndax su deful woon plaidoyer boobu loolu du am ñooñu aussi binduñu ñu lettre barre non lettre bi ñu bind dañ koy bind parce que ku nekk xam ne waa IEF xaw ma IA bu Kër Massar eh, ak préfet bi nga xam ne nii moo nekk préfet eh, bu bu bu Déñaay sous préfet Déñaay et le préfet du département de Kër Massar foofu la koy jaarale bu ko joxee préfet bi boo xoolee préfet bi day da koy da koy soumettre da koy day dañuy mettre en en application le le préfet le sous préfet Déñaay le maire c'est normal parce que nit aussi da nga koy jox cëram loolu dañ koy jox cër bi mais du moom moo mën a na taxaw. di régle loolu du du moom kon je pense que li mu war a def euh, mooy tey li mu waroon def mooy féliciter ministre bi ci loolu nga xam ne da koo def mais bu taxawee ne ministre bi dem bay avancer sax ne ministre bi euh, di wax waxu kàcc loolu c'est c'est c'est des paroles déplacées et baara xaaruñu ko woon foofu donc fi nekk nii euh, lan mooy lan mooy taxawaayu ki nga xamante ni mooy Bara Gaye euh, wala ba ki nga xam ne mooy monsieur monsieur Amadou Hott ginnaaw ba ki nga xamante ni mi ngi mi ngi euh, jéem a chercher à à à mettre à mal li nga xamante ni moom bi xam nga loolu lañ lay wax dañ la bëgg wax ne la tey Bara dafa nekk en perte de vitesse lan mooy perte de vitesse il pense que ne ministre bi dina taxaw di ko tontu Macky Sall da doon wax naan du xool rétroviseur man du ma dàqee nit ba raw ko di geestu sama ginaar pour di ma dab baara dafa nekk perte de vitesse gars yi romb nañ ko euh, muy muy pratiquement waxuma sax ministre mais ñeneen ñi fi nekk même ay ñoom Modou Mbène ñoom responsable yi fi nekk yëpp tey même population day yëmbal su nawlootuñ ko parce que li muy wax du méngoo ak li muy jëf li muy li muy li muy jëf du méngoo ak li muy wax nit ku mel noonu nag bu fi nekkee pendant cinq ans ñu defal ko yàlla dimbali ko mu amaat une prolongation yàlla dimbali ko mu tombé ak acte trois ak toutes les possibilités yi mu am par rapport aux autres maires précédents euh, tey muy taxaw di bàkku ne lii laa fi def lii laa fi def je rappelle que muy wax lépp muy école muy police muy tout ce qu'il dit moom moo ko fi def euh, dafa war a wax ne grâce à Macky parce que tey bu fekkoon Macky Sall taxaw ci infrastructure yi fi nekk indonation jóge fi taxaw ba espace am ñooñu mu mu fexe yóbbu leen feneen dëkkuwaay bu gën espace yooyu mu mu bàyyil ko ko ba mu man di taxaw di wuti ay partenaires ñu koy defaral yenn yi je pense que loolu du am loolu benn la beneen bi ci topp budget bi muy am ak lim ciy def ku nekk xam nga ni mu demee mais nag ku ku ku ku añu réerul nga ñëw yëmbal ak pauvreté bi nga xam ne moom la commune du yëmbal am euh, bokk ci les communes les plus pauvres tey ñu doon nekk ci benn benn benn benn benn situation bu metti soo amee possibilité def dix nga def un ñoom dañuy jàpp dañ lay applaudir parce que ab zéro la woon mais tey baara fi fi mu yem ak li mu war a def donc soo ko doon noté tiwaali doo ko jox moyen du am sax passable mais mais Jokor lay am. donc ndax jamono ji euh, liggéeyu école boobu ndax dañ ko arrêté wala wala municipal bi day continuer euh, action yi nga xamante ne bi ñu ko doon def ngir jàppale euh, population yu bëri. non action yi ministre bi def je pense que tey moom dafa wax école bi mais war naa wax yeneen dégg nga chaque fois buy wax ne damay bippe li mu bippe lépp xool ko ñaata jàkka la fi def ñaata jàkka la fi def ci sport ñaata ñaata ñaata ASC la fi jàppale. tey école yi ñuy wax nii ba ci Abdou Ndiaye ak yooyu lan la ci dugal du kiyam jàkk yi lan la fi def donc social bi centre bi mu tabax ñaata jeune la formé ñaata femme la formé ñaata financement la dugal yëmbal boo koy wax doo fi jóge donc loolu je pense que du lu ñuy wax tey euh, te mënoon na koo bañ a defan ah. mënoon na toog nekk si liggéeyam euh, euh, muy économie réew mi Euh, bañ a def loolu mais dafa jàpp ne doomu yëmbal la kuy def loolu nag te jotagut maire je pense que bu amee les les compétences transférées yi nga xam ne ni maire am na ko yëmbal bu bees day am loolu ñun ñëpp xam nañ ko mais encore une fois dinañ réagir en tant que coordinateur du de la coalition de la zone de Madi Ndiaye ne baaral li muy wax dara dara amu ci ñun le ministre bi recevoir. ñu toog porter les doléances des populations de Yeumbeul Sud indi ko jox ko ko ci semaine yooyu mu def tous les moyens ba ministère de l'éducation nationale jël les choses en mais il dit que il a un un il a voté un budget de vingt-huit et quelques mille millions pour defar Madi Ndiaye waaw Madi Ndiaye sept ans yi ci ginnaaw ak nii mu mel ni depuis des années parce que lii daanu nii ak force ak ak ak ak douche yàqu yi du du 2021 ça date plus plus que 2021 donc même si su dee ci 2021 la budget bu ñu voté 2021 dafa naa ne budget 2021 duñ ko voté en cours de de de dañ koy voté bien avant donc su fekkee ne budget boobu voté woon nañ ko depuis 2000 2020 ñu voté budget bi mu war koo war koo déroulé ci 2021 bi mu toog. defu ko ci deux mille vingt et un pendant l'année ba école tëj ci budget boo voté ba nga ne am nga ko pourquoi ci biir année ci biir année vacances yi lii muy wax nii defu ko il a il a fallu ministre bi réagir mu doo ko jóg ça c'est un de deux bi mu ko commencé un certain moment da ko arrêté fi mu nekk nii tey bu fekkan euh, la protection civile dañoo ñëwoon def visite fii normalement dañ koo war a interpeller parce que ay xale yu tuuti di jàng ci école ngay continuer di fa tabax ne da ngay yëkkati tey bu fa incident amee qui serait responsable tey mun naa comprendre nga def ci suuf mais ngay yëkkati ne da ngay defar yeneen tey bu fa bu fa incident amee brique war dafa dal xale wala kenn kenn dara faire gaañ fa xale qui sera responsable c'est lui donc je pense que il n'est même pas conforme ak li nga xam ne nii loolu la loolu loolu loolu loolu loolu la loolu la loolu la loi bi wax loolu la règle yi wax ndax booy tabax ay xale di jàng xale bu xamul dara CI am na fa ba CM2 nga bàyyi xale yi ñuy jàng nga waroon nga wote budget bi waral koo def ci vacances yi nga ne même si c'est vrai je dis et beneen question bu may poser par rapport à ça euh, nee na ci biir waxam bi ñu gañee marché bi kim ko jox daf ko woowaat ne ko damaa bëgg nga jox ko un des conseillers moom moom en tant que maire mu woowaat kooku ne ko damaa bëgg nga joxal ma marché bi un des conseillers parce que amul droit marché en tant que conseil ma di ko laaj baara est-ce que loolu am na si droit